gërëm naa leen ñu bokk muy suñu ci dikkalaat waaw euh, defe naa ne Double moom euh, Sénégal ñëpp ko bokk génération yu njëkk ya ak génération léegi euh, ci wàllu éducation wàllu formation wàllu sport réussir na àddunaam ndax toll na fépp fu sportif a toll ci àdduna yar ànd ak teggin ñëpp lii bu xewee ba pare xew ci Guédiawaye may nekk maire Guédiawaye Balla Gaye ak ay rakam di samay rak suma devoir mooy ñëw mbokk ñoom naqar bi maa ngi koy jaal bu baax waa Sénégal yëpp waa Géejawaay yëpp di ko yàlla yàlla xari ko àjjana waaye di ñaan yàlla yàlla taas ñu ci barkeem te yàggal sarax bi ci loxo Balla la tudd lu bare bare bare Balla suma rak la yàlla moo ko def. li ñu seq du affaire politique du leneen euh, bi ma ñëwee fii la ñu yàlla boole ñuy ànd ci dimbalante ci yar ci lépp ba tax na euh, lu mel ni bu xewee ci man rek ci man la xew suñu relation nag dafa dépassé affaire événement rek sama rakk la may magam man koy mu euh, may jàppale tamit ci lu bëri fierté la ci ñun lu mel ni boo amee fa mu nekk ci والأمان ولا تحطمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان وأكبرنا عنه بالغفلة waxee ne papa doo sax mag baa defe naa ne nag lu mel ni su amee ah dinañ la ko jaale diggante Double Less laa lay njëkk a laaj ak Double Less waaw sant yàlla bu baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaan rek suñu papa Mamadou Sakho Double Less yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko suñu baay la suñu waajur la ci kanamam lañ juddoo ñun bi ñuy judd dañ ko fekk mu dëkk suñu waajur fii ci Guédiawaye ci corniche arrêt Double Less arrêt Dial Mbaye kon suñu waajur tey mën naa Sénégal yëpp ñoo ñàkk mais ñun tam ñàkk nañ ndax ñàkk nañ waajur bu baax waajur bu amoon personnalité waajur bu amoon fulla bu amoon dignité bu ñime woon dëgg ba tax na aussi ñu koy a yàlla rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu nekkoon yàlla xare ko àjjana yàlla yërëm ko te yokk yërmande ci kawam ndax suñu waajur la woon bu amoon ci ñun koo daf ñu wóolu woon ci njabootam confiance boobu mu am te nekkatu fi tam yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla defal ñu ci barke yàlla defal ñu ci sutura waaw na ko yàlla yërëm ñu ñaanal tam njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo yàlla yiir leen sàmm na ko yàlla am na ko yàlla na ko yàlla defal incha sa diggante ak Balla parce que Balla ku ne xam ne sa rakk la daan lay muy Baye Ndiaye mais ñu gis yow nga ñëw jël Balla. maanaam mën nañ sax mu gënal la rakk yi nga bokkal ndey ak baay la moo indi loolu. waaw ndax confiance bi rek moo am solo ndax Balla dootuñu dootuñu ay diggante mbër ak nit Balla ñun ñoo bokk fu ñu juddoo ñoo bokk commune bu ñu juddoo bokk quartier bu ñu juddoo bokk gox bu ñu juddoo loolu moo ñu boole dañu. ñun bi ñu màggee dañu fekk suñu waajur yi da ànd ba tax na loolu lu yàgg la confiance bi dafa jiitu suñu juddu kon yàlla na ko yàlla nañ yàlla am ci ñun doom moom dafa baax rek waaye yàlla liñ koy ñaanal mooy yàlla defal ko sutura confiance bi mu am ci ñun yàlla ah, li mu yaakaar ci ñun rek yàlla na ko yàlla mi nga xam ne mooy sàmm yàlla nañ ko yàlla sàmmal yàlla miy defar yàlla nañ ko yàlla waaye ñu ngi tàllal loxo Sénégal yëpp di leen xam ne ñàkk waajur dafa métti rawatina nag waajur bi nga xam ne daf ko xam fu mu taxawu ko ci carrière am taxawu ko ci liggéeyam mu koy ñàkk ko métti na ñàkk entraîneur am ñàkk waajuram loolu lu métti la période bu difficile lay traversé waaye yàlla suñu borom borom sutural la yàlla nañu yàlla sutural maanaam tey mën na lamb tamit loo leen di wax ndax niñ ko delloo njukkal ñoom ñëpp ñu ànd yóbbu ko ci këram bu mujj mbër yeeg ñëpp tey ñooñ tam ban message nga leen di yónnee waa lamb non dama ragal ne lamb moom réussir nañ seen mission ndax mission bi lamb réussir mooy ku ci am bés muy bisu bànneex ak bisu naqar yaag ñëpp ñoo koy bokk Mohamed Ndao Tyson mi ngi fi woon Bombardier bi war a bëre Balla Gaye mi ngi fi woon Gris Bordeaux Boy Niang mbëru Sénégal yëpp Tapha Tine ba ci Yékini dafa nekkul dakaar mais woo na ma démb téléphone jot na Balla Gaye aussi nga xam ni Sénégal ñëpp nitu làmp yi ay nit ñu baax yaa ngi yàlla fay mais làmb moom réussir na mission ba def boppam famille am nañ fulla bu seen liggéey jotee ñu dem def ko waaye bu jeexee itam ñoo bokk nday ñoo bokk baay yàlla nañ ko yàlla gën a dëgëral euh, noonu waa làmb ànd itam yàlla nañ yàlla gën a suturaal xam ne nañ lu nekk lan mooy place am kon ñi ñaanal ñi ci nekk ñëpp mbër yëpp ak mbëru Sénégal yëpp ak ancien gloire yëpp amateur yëpp journaliste làmb yëpp yàlla na leen yàlla suturaal te sàmm la ñu ngi leen jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. teewaayu Alioune Sall en tant que loo ciy wax sa diggante ak moom. Alioune suñu grand frère la suñu xarit la xaritoo bi moo jiitu maire bi xaritoon nañ boobu nekkagul maire te mu nekk nit yi kóllëre ñuy gisante di déggante di amlante ñun géejewaay famille lañ amuñu coloration politique ñun ñoo bokk lépp ndax géejewaay moo ñu intéressé képp ku koy liggéey rek suñu nit la yaa xam muy Alioune Sall Malick Gakou Ahmed Aïdara Lat Diop ñun ñëpp ay frère lañ ñoom ñii politique seen champ politique la ñoom mais li ñu bokk ñun bokk nañ ko ba pare ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla na yàlla nañ la ñoom ñëpp suñu frère la salaamaaleykum. Père moo nekk nii ah keroog gisoon nañ la si armée yi waaye nag comme ne na lu dul doy la te waxaat du bari wax mais leeral ay wax la tey nga ñëwaat solaat sa dàll ñëwaat fii golf kër Balla Gaye ci ñetteelu bés bi defe naa tey euh, yow comme li mu wax keroog rek. mbir mi metti na ci ñëpp waaye yow yaa gën a metti ndax yaa ñàkk yaa ñàkk sa ñaari mag ci espace un mois tey teewaay bi fii lan moo ko waral ti du ma laa lu ko waral mais yëg-yëg bi lan la. jërëjëf bisimilah alhamdulilah rabbil alamin waa tey moom bis bu la. mu ñetteel nga xamante ne moom la ñu denc euh, Mamadou Sakho Double Less delluwaat rek di ko ñaanal liñ fi jàng ak liñ fi ñaan yëpp depuis bu mu tëddee ci bi mu nelawee ba bisu bi mu ñetteel fan bi. yàlla yónnee ko ko fa mu tëdd mu doon tawfeex ci moom mais te nag dama ñëw ànd ak sama famille ànd ak sunu xalifa euh, Malick Gueye xamante ne moo topp ci Mbaye Gueye rek mooy tofoom ànd aussi ak euh, moom min ngeen ko ci làmb ji le directeur technique équipe ñu bokk ndey ak bàyyi tamit lii boo ko gisee nag kóllëre gu ñu seqoon ak Double la ndax ñoom nee nañ mënuñu toog mukk te ñëw ñu fii toow toog doomu Double Less yeeg soxna yi Double yi gis leen ndax li ñu seq ak Double Less yaatu na gudd na do jiite na juddu ay doomam Double bi mu ñëw fii daan na ñoom ñi ñëw mën a fekk yëfu Double Less war a tofoo ndoog moom boobu ba boobu Double Less amu benn doom tey jii sànq laa présenté taawam bi di malal ndeysaan ñu taxaw di waxtaan ñoom ñaar kon ñëw wi tey ñëw jàll ñëw Euh, ñaanal euh, Mamadou Sakho ñëw aussi ndax kóoléré xam naa boo ci bëggee am lu gën a yaatu nag nga déplacé wu tuuti ci Malick Guèye rek mu gën a waxal leneen lu gën a xóot macha kon tey boo déggee wax ji maanaam famille Guèye ñoom ñoo déplacé wu tey ànd ak seen rakk Moustapha ñu suñu père Abdou a ngi toog père Malick a ngi nii yaakaar naa moom ku ko xamul tam dégg nga turu Malick Guèye ndax écurie Fass a tax kon defe naa tey écurie Fass moo déplacé wu euh, ñu lay jaale ki di mag ci yow waaye tamit yaakaar naa ne am na lu bëri loo war a wan wax ci moom ndax bëri na loo fekkee ci moom yaakaar naa ne Père Malick. asalaamaaleykum kon ñu ngi nuyu ñëpp sunu tànk yi nag daanaka tànku njaal la njaalu famille Guèye ñu si sunu ay doom famille Sakho ndax Double Less kenn ëmpalewul ne. ci suñu famille la bokk sunu yaay def ko doomoo mu nekk ñu nekk bu rafet rafet ba bu muy génn àdduna it nekk bu rafet lañu nekk ndax xam nañu ne moom mbéggee seqoon nañu làmb ay kóllëre gi moo jiitu moo waral sax ñoom ba ñuy bàyyi làmb ñoom ñaar ñuy ànd ci biir lees nag ñun tey xale yi ñoom ñoo ñàkk seen papa mais ñun dañu ñàkk suñu frère suñu frère de cœur pourquoi mooy suñu frère de cœur Mbengue mooy suñu frère de sang mënuñu bokkal mais Double Less yàlla moo ñu boole ñu ànd ànd bu rafet bu génnee àdduna dañ fiy teew ñun famille Guèye jaale ko famille yam yëpp xamal leen ne kóllëre famille bi la woon ànd bu rafet la ñu àndoon di ko ñaanal nag yàlla xare ko àjjana ndax dafa woy waaram ci tool bi ndax Double Less ku ne xam na ne lépp lu war def ci làmb def na ko ci bu nu indil na ko Sénégal Sénégal nag moo ko ameel njukkal moom Double parce que c'est un monument aujourd'hui moom moo dem un monument de la moo dem aujourd'hui kon nag ñu ngi koy jaal Sénégal bi ñu koy jaal sax ñun ñun famille Guèye ñoo koy jaal Sénégal di gërëm nag xale yi di ñaanal xale yi nag ñu toppante ndax kilifa gu mel ni Double Less bu fi jógee tey bàyyi njabootam ji li war mooy ñu ànd toppante dëgëral famille bi daal loolu ñuy ñaaxee xale yi ñu toppante ñii xale topp ci ñi mag ñii mag yërëm xale yi nga xamante ne ñooy seen rakk loolu daal ñuy ñaan di koy ko digal macha allah jërëjëf. am na solo jaajëf. Kër Balla waaye defe naa ne yéen a ngi dégg turu malal malal malal. defe ñu kii ñu jàkkaarloo nag moom lañ ma wax ne mooy malal man nag c'est la première fois ma gis ko maa ngi lay ziar di la jàlle sa wayju di leen wax ne ni ñu dem ñu ngi leen di delloo njaal bi parce que yaakaar naa euh, dëj bi duñu duñu ñoo ko moom Sénégal ko moom Sénégal Sénégal moo ñàkk tey mhm. yow yaay taawu paa bi ci góor walla waaw ci góor waaw may taawam bu góor am naa ñaari mag yu jigéen mais kenn ki yàlla yàlla da koo jël kenn ki moo fi des mais ci yi moom man may taawam boo gisee sa waajur génn àddina mu mel ni lamb la doon def di bëre monde lamb yëpp taxaw maanaam képp ku ko wala Sénégal sax laay wax kere biñ koy denc lan ngay yëg en tant que waajur wu mel noonu nga am ko. keroog bañ koy denc lu ma xol bu sedd laa yëg xam nga sa papa génn àdduna Sénégal yëpp ñëw wuy ko. loolu loolu day dina métti mais day sedd xool parce que seede yëpp benn la xam nga koo tàllal micro tey si Sénégal nga ne ko Double Less dala na la nit ku baax xam nga loolu rek sedd na xool moo dañu fu mu ne dañuy jéem a topp si ay tànkam rek ba ñu def benn erreur parce que ne erreur bu ñu def rek après de kopp si ñun te moom yarewuñu noonu te moom daf ñu yaat si diine si jaamu yàlla ak si dëgg. waa jur bu la ko defal rek deseetu la dara ñun moom ñun ah, ñun daal ñoo ko deseel loo xam ne dañ koy ñaanal yàlla fu ne ñaan rek lañ ko mën a delloo ba pare njaboot bi ñu ñëpp ñu nekk benn te loolu da ko daan xeex nag mais yàlla def na comme tey boo ñu gisoon tey ñu ne ñu ay doom baay lañ doo leen doo ko gëm ba ñu ñëpp dañoo suudewu loolu moom yàlla may nañu ko moom may may nañu ko sarak Balla moom itam li papaam doon yëngutu muy làmb bi mu ñëwee ci la yëngutu mook sa mook Sa Thiès Balla moomu tey moom loo ma mën a wax ci Balla en personne waaw ànd nekk ak euh, rakam mun naa wax moom daf mu rus daf mu rus wax dara Ousseynou la koy wax Ousseynou la ko wax ma ko xëy na rusen euh, lu mu rusee xëy na moo tax euh, yenn communication yi du gudd mais nit ku baax la xam nga nga am sadak di xam ne kii nit ku baax la loolu moom julli dëgg moo koy def yaru na euh, jullite na xam na jonne cër ay magam man daal dama koy ñaanal parce que tey chaque tabaski am naa njëgu xar damay chaque tabaski damay jënd xar mais dafa naan teel sa xaalisu xar xam nga ku lay defaloon chaque tabaski day di xar ne ma kaay yónni kenn mu ñëw jël si ko munu ma ko fay dam dama koy ñaanal yàlla xam nga yàlla mooy fay lépp lu mu bëggoon si làmb ak lépp lu mu ñàkkoon yal na ko ko yàlla joxaat te ñaanaa dina ko joxaat parce que yàlla xol lay fay te yàlla bu ko fayee xolam dina am leneen loo xam ne sax du jóge si làmb kera jooy na ne ñàkk na yow yaakaar naa bi mu jooyee loolu dawloon na yaramu ju bare bare bare bari kera ci armel waaw loolu am na xam waa xam nga moom ak nu ñu meloon te ñu woo ko leen ñoo ko sa papa jóge na fi te doodoo ko gisaat loolu neexul si dina am trop lu ko manqué fu mu nekk loolu moom ñoom léelu laa koy dénk ñuy waxtaan ak moom souvent parce que buñ ko bàyyee mu wéet rek day toog di ko xalaat te buy toog di ko xalaat rek du baax si moom du baax ci moom liiru waaw moom de leen si waxtaan ak moom muy delloo si waat si xelam ni yàlla yàlla ba mu ñu koy jox tàggoowul ba mu koy jël tam tàggoowul su dee paa bi xaalis moo ko doon faj kon paa bi du mus a génn àdduna du mus a génn àdduna mais xëy na yàlla moom ay mbiram kenn xamu ko yooyu da ngay programme yàlla programme mais programme yàlla moo gën a wóor ko sa bu nit dinañ ko ñaanal ni nga ko soutenir am na loo xam ne dina ko manqué trop si làmb ji dina ko manqué moom parce nga daan dem saa booy ngeemu nga dem ngeemoo sa kar papa ngay génn mu ñaanal la tey même bu fa dem dem tey di ngeemoo bu gëstoo du ko gis loolu dina ko manqué waaw dëgg la waaw yàlla fi waaw yàlla nga fi incha allah incha loolu am na waaw dëgg la waaw. Mhm. tey héritage bi dis na lool ndono bi yow yaay taaw parce que te itam taaw ne nañ mooy bàyyi kon defe naa taxawaay bi xanaa kon ci yow la koy xaar fi mu nekk nii. waaw daanaka mun naa ne di dina diis wala du diis parce que na lépp loo gis rek waxtaan la. tànk yaa ngi waxtaan ak ay nit wala ak ses frères ses du musaam mais xëy yoon bi nag dina xaw metti parce que moom du ñëppay. àdduna moom du ñëppay bokk xalaat mais dañuy jéem loo xam ne gis naa si loo xam ne sa daan na ko def dinaa topp si ay tànkam ba yéen bi xaw a oyof. am na solo kontaan. waaw ñenn kontaan naa ci yéen